asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala maa ngi nuyu ñëpp di leen ziara di am mbégte lool si jotaay bi ndax eh, tey jii bis bu rëy la ci man ndax eh, jotaay bii ñoo toog am na si ay kanam yoo xamante ni mënoon nañu ñoo jàngal école primaire. xam naa ne ñoom xam nañu waaye man xam naa leen man fii laa juddoo Géejawaay fii laa jàngee école vingt jàngee Limaamu Laay dem université jógee fii laa gën nag gëj naa fi ça fait maintenant douze ans bu Chérif ñëwee ren bi mu defalee waxtaan ba pare ma ko Chérif ren da naa yéene dem Sénégal ne dina ñëw sama yoon bi ci cinq laa ko laaj kon euh, euh, loolu doon na témoignage daal kàddu yi nag du bari xanaa dama koy gërëm rek su ma paree jox sama kilifa mooy Chérif mi maa ko mar ci ayat waaye mooy sunu kilifa fële ndax. Euh, moo ñu jiite si lépp ci xadara bi ñu lépp daal maanaam ci wàllu xam kon maa ngi leen di Cherif bu baax a baax a baax di wax rek man euh, mun wax ci yow comme ni ma doon waxee rek présenté dama naan rek dama leen di présenté Cherif ci Zaïre si li ñu xam si yow sa tur mais li ci des moom nañ ko jox borom xam-xam yi wala ñu am fit. pour mu présenté la waaw man fi ma fi ma fi ma sama xam-xam may fa la yem mu nekk témoignage bu gàtt rek ndax lu day ni anniversaire sëñ euh, euh, Maam Abdou euh, képp ku la ko jëlee responsabilité di la ko defal chaque année di jóge Sénégal daggal boppam bii aller-retour loolu defal la ko def sa kër trois jours wala quatre nga pare dajee loo xamante ni moo tax sax paas jox ko muy ree ba pare di leen gërëm nga xam ne kooku moom amuñu fayam mu nekk jour boo xam ne nag jour man boog jour boobu dama koy ñawal mbir boo xamante ni moo sol ba mën na ko seede jour boobu laa koy sol bu paree nag ku ma ko mën a jox jox ko suba ñu mën a sol ma sol mais jour boobu. ski korité gàmmu jour boobu sama jour la waaw mu nekk euh, témoin yoo xamante ne dinaa ko def fii euh, mu nekk nit ku simple nit ku baax pëggu dugg ni ñëw waa Espagne waaw sama njaboot buñ ñëw sax day indi sëriñ kon sëriñ ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di la gërëm surtout daayira bi di la gërëm ci tubaab bi nga yëpp xam naa ni kàddu yu gudd parce que sama xol dafa fees waaye xanaa ma jox sëriñ sama sëriñ moom mu sànni si ay kàddu sëriñ jiit mooy suñu président fële ca Espagne dëkk bi ñu wax Moguer ca daayira bi ñu tuddee ko daayira Cheikh Ahmada Tidiane Chérif bu Moguer wax dëgg yàlla Chérif daal ah, sant rek ak gërëm. waaw sant di ko sant di ko gërëm ci lépp nag ndax dëkk bi mu fasanteeg ñun kóllëre ba léegi ndax dëkk bi bu amul lu mu toll dëkk bu ndaw la waaw dëkk bu ndaw la waaye yàlla dong moo ko tax a jóg ak jigéenu lislaam ak tariqa Cheikh Ahmadu Tidiane Chérif radiyallahu anhu ak tam cofeelam ci Cheikh Hadji Abdoulaye Sy Dabakh waaye daal xol fees na wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla dañuy kontaan dañuy bëgg lool saa bu fa ñëwee ba ñoo fa jëlee fa tabaarakallaahu Chérif ñu la ñaanal man daal di la wax lu di la ñaanal yal yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk sa daraja yal na yàlla yokk sa maqaama yal na yàlla guddal sa fan lool lool lool lool bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la lool Chérif wax dëgg yàlla ba la gisee dina mën a wax. ndax cofeel bi mu am ci yow waaw Chérif Mouhamadul Habib lañ la tuddee ñëpp xam nañ ko fii ci Pikine moom lañ la tuddee waaye cofeel bi am ci moom ba ma ñëwee ba noppi ñëwaat fii a dem foofu sama kër Trondou ndax sopp Chérif Chérif mi waaw yàgg koo bëgg yàgg koo sopp lool ba yàlla dogal ma gisat moom waaw ak li ma yàlla di wan ci moom lu bëree bëri bëri ci gént loo xamante ni mënu koo wax sax fii waaw Chérif jërëjëf jazaakumullaahu anna xayran Chérif yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla may la wér yal na yàlla kattanal la yal na yàlla dooleel la ñun di sopp nañ te saa bu ñu xëyee ñu ngi lay sopp rek saa bu ñu xëyee doo sopp ñu ngi ñaan yàlla cofeel boobu yàlla yàlla yokk ci minute bu nekk ci seconde yu nekk saa su nekk yàlla yokk bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xool sedd na waaye jërëjëf jërëjëf Chérif jërëjëf jërëjëf jazaakumullaahu anna xayran sama sëriñ Mawlaay Cheikh El Hadj Abdou Aziz di ko tudd ci ay waxtaanam kon yow mu ma may ma teg fa sama tànk mënu ma leen fay waaw waaw dama daan dégg rek El Hadj Aziz sama sëriñ di ko wax ci ay waxtaanam Abdullahi al Andalusi ay Chibnoun ah yéen ma may nag ma teg fa sama tànk yéen mënatuma leen a fay ah, te mu ngi bëgg yàgg bii passé mooy cinquième édition. ñoo ñëw di ko fa def su ma ñëwee ñu ne leen ñuy daj waaw mbaxali saalum ak lam fay tumaranke yëpp danañ fexe ba togg mbaxalu saalum waaw Babacar muy soxnaam mooy dugg dugg dugg yëpp togg mbaxalu saalum waaw balaa ñoo togg dara ne ma loo bëgg ma ah man ñu ñàkk fayda yooyu laa bëgg de ay domoda ak ay mbaxalu saalum ak te xam naa ne gan yi ñoom bëgguñ yooyu ah gars yi xam naa ne ay ceebu yàpp ak yooyu la soxla man na ñu ñàkk fayda yooyu rek laa soxla waaye teewul rek dañ koy togg toggal gan ñi leneen waaw ah, yooyu yëpp seen xeetu baax la kon eh, li mbay mi wax rek mooy dëgg boo demee ba foofa nag di nga xam ñooy ñan wolof dafa ne eh, balaa ngaa xam nit ki nga nga daagu ba këram foofa diine yomb fa. waxuma laag doxal fa diine yombul sax waxuma laag di xalaat tarixa waxuma laag di xalaat nag daayira waxuma laag di xalaat taxawal gàmm wala conférence wala nangam ndax loo fa bëgg ci ay kayit nga koy teg boo amee kayit moom dañuy naan ci biti ah, def na fa association boo xam ne sama sama carte ngi nii ci sama poche fa tabaarakallaahu ba léegi fu ma dem dama koy dama koy gàddu yóbbuwaale ndax association bu am solo boo xam ne euh, semaine bi du noonu la Babacar semaine bi dañuy daje lekk gratuit tubaab yi sax dañuy ñëw di lekk ay yére di ko séddale lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne lañ fay def ci turu association boobu ndax tubaab yi xamuñu daayira ñoom association lañ xam xamuñ daayira loo fa loo fa tuddee daayira it da fexe. moderniser ko dugal ko ci seeni programme waaye tabaarakallaahu ñoom duñ koy def eh, borom dëkk ba muy meer ba ñu ngi koy waxee ñoom meer yooyu ñoom ñëpp dañuy ñëw jàpp ci di leen subventionné la ca war yëpp ñu def ko gis ngeen carte baa ngi nii hmm? carte baa ngi nii man bii mooy sama bés jàppoo carte jàppoo Moguer association par Lasuri para gis nga ni euh, espagnol la moo tax association para solidarité ah, gis nga ah intérêt jàppoo waaw ah, mooy al birru wa taqwa bi ma taxawal fii rek te ñoom bañ koy taxawal tàgguwuñu ma mu dëppoog liñ taxawal fii mutuelle de santé bi man sama basa ngi nii tabaarakallahu te gis nga ni carte yi rafetee de lii du carte Sénégal de bu ñu ko xoolee rek xam ne du carte si carte Sénégal këyit lay doon boo ñëwee mu mu damm bii comme carte nationale d'identité comme carte d'identité yi lañ ko def ak permis yi gis nga ni mel ñoom seen carte association yi nii la mel bu dee ñun nag ay carte këyit yii la buñ paree rek ndaan yi ñëw ko waaw bàyyi <laughs> sëñ Babacar gis nga ko moom nii moo ko fa taxawal ay mu ne ay pousse pousse yoo jox gratuite semaine bu jot am na bés bu ñuy dajee togg gratuit tubaab yi amut loole sax dañuy ñëw di tibb di yóbbu waaw lundi ba jeudi mu ngoog ñetti fan lundi ba jeudi ku ñëw lekk gratuit dem sa yoon ah ngénte tubaab man ngénte tubaab laa ko tuddee waaw dangay ñëw lekk rek daagu dem sa yoon amul fay dara te moom mii moo ko fa taxawal. waaw lu ne la ciy daj lu ne lu ne la ciy daj boo demee ba foofa gis niñ ko organiser sa xol dafay sedd ñu ne la ñii ay sénégalais lañ te terewul nag mm, euh, galgal yu ne jot na ko ci waaye dara mu ngay dox rek te murit ak tiijaan ak xaadir bokk ci biir waaw bokk ci biir murit tiijaan xaadir laayeen ñëpp kon Babacar jërëjëf euh, li ci des sant la ak ñaanal leen yow ak Chérif ak euh, mbokk mi ngeen àndal